le président mu nuyu ñëpp eh, di sant sapeur pompier yi teew suma collègue yi eh, le colonel di sant tamit les représentants du mairie de de de euh, de Touba di wax ni jëf ji tay dañ fi teew indi ñetti sapeur sapeur pompier yo xamanteni commanda commandant le général des sapeurs pompiers d'Italie mon moko ko joxe ingénieur Fabio Dadilo ñu jël lepp tek ko ci loxo euh, Touba ci kanam ba mu jaaree ci commune bi ñëw ci loxo Touba ca kanam Touba ca kanam nag damaa bëggoon leeral nii Touba ca kanam moom moo fay lépp ba mu jógee ca pooru Livorno ba ba egsi ci pooru Dakar ba ci génn bi ba indi ko ci Touba pour jébbal ko sapeur pompier Touba bi Touba ca kanam moo fay lépp Touba ca kanam moo fay tam sama billet pour ma ñëw seede jëf ji donc ñu ngi sant di ñaan sëñ Abibullahi Mbacké Fallou lu yàgg fi te wér Touba ca kanam gën a jëm ca kanam damay wax samay kàddu sax wax naa ko sama baay Moussa ma ne ko war warta dem ca kanam sunu jëm yi ñoo war a dem ca kanam parce que lu nekk ajana ma nga ci ajana ñun ñoo ko war a fekk ñun ñoo war a jaayante jëm ca kanam muy convention boo xam ne nii entre euh, Italie muy euh, sapeur pompier mi ko mën a waxee yi nekk Italie ak yi nekk euh, mairie Touba ñu amoon benn convention boo xam ne dañu ko jaaree ci Touba ci kanam boo ko àndandoo liggéeyoon ko ngir lan bëgg ba séenee wuti loo xam ne nii njëriñul Touba lay doon njëriñul dëkk bi lay doon. Touba ci kanam ñëwoon ba invité waale maire bi boole ko ci ngir euh, dafa am loo xam ne administration lay demee yoo xam ne mënul euh, faaw maire yi di ci dàkk ngir euh, dëkk ak dëkk dafa am loo xam ne buñ koy signante ak convention lay doon muy entre ñaari maire yi. loolu moo waral ñu jël maire bi Touba dugal ko ci comme ñoo bokk liggéey bi ànd ko ak waa Touba ci kanam ngir ñu fexe ba matériel bi ngeen gis tey mën a jóge Italie ñëw. kon nag muy lu rafet muy liggéey boo xam ne mooy li ma leen di wax rek ne Touba ci kanam ak mairie Touba ñoo bokk liggéey bi ñoo bokk lépp lii rek wane wan na ko tey jii. li nga xam ne nag euh, moo fi xew tey muy ay oto sapeur pompier yoo xam ni waa Touba ca kanam ah ànd kook euh, mairie bi nga xam ni mooy institution bu permettre euh, coopération bi mën a am ndax bu mairie bi. taxawul woon xëy na dinañ am jafe-jafe ci côté boobu kon waa mairie bi ñoo ngi nuyu monsieur le maire di ko gërëm di gërëm ñi ma àndal ñëpp di liggéey euh, ñun sapeur pompier nag euh, mënuñu dul remercier leen sant leen ndax lii ñu def ko geste bu noble la geste citoyen la waroon na ku nekk mu def ko euh, ndax lii ngeen def nii defal ngeen ko seen bopp xëy na defal ngeen ko waa Touba waaye population ngeen ko defal ndax oto yi population bi lay sauver kon nak man na noo wax ni dafa liggéeyal ngeen yalla ci li ngeen def euh li day ñew renforcer programme bi nga xamni ni le président de la république tek genné ñaar fuk ak juroom ci milliard pour équiper sapeur pompier moy engin yu bes yi ngeen gis ñu ñew te benn bu ci nekk di jar 300 millions kon yeen dafa melni ni da ngeen a feelu président wala ngeen dugg ci bir programme am ndax li ngeen def day ñew fekk ci renforcer capacité opérationnelle bu Touba. Touba tey ku ne xam na ni dëkk buy màgg la ku ne xam na ni moyens yi ñu indi bu fekkee see moyens yi nekk ci camp bi du ñu am sax fu nu gaare mbaa buñ ko amee it bu ñuy génn génne bi dina am jafe-jafe moo tax jaadu na euh, loolu vraiment Serigne Habib yow laa koy wax euh, ñu am beneen caserne boo xam ne ni dina ma tax ñu éclater moyens yi ndax bu lakk amee ci benn gox engin bi war a jóge fii mën na yéex a àgg buñu amone benen caserne bu ké départé ki départ rek japp na né dinañu mëna liggéey liggéey bu am solo ndax moyen yi tubaar fokkal na ñatt yi ñen joxé bu fekk sé ñaar yi fekk ci li état def day melni tay ci caserne Sénégal amul caserne bu ëpp moyen caserne Touba lool nak yeen lañ koy santé di leen ko gërëm auto yi nak na seen xel dal ko yor yor buñ ko wara yor yor danañ ko sam ndax xam nañ ne yoon bi ngeen jaar ba am ko yoon bu yomb fay ngeen ci seen xaalis consacrer ngeen ci seen temps loolu yëpp sacrifice la boo xam ne lii rek ngeen bëggoon bu lii amee nag ñun ñiñ ko jox jumtukaay yooyu dañ ko war a sàmm téye ko xam nuñ koy téye bu soobee yàlla danañ ci def li ci war yëpp dellu di leen sant rek di leen gërëm s'abonner se chercher et la vôtre kon nañu bàyyi xel ci way ñàkk yi maa ngi ziar ñëpp man la ci wax TV di di ñaan ngeen abonné ci site bi allah Bienvenue dans TV si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de s'abonner,